mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax euh, comme ni ma leen ko junjee woon rek dañuy continuer ci ñaareelu jataay bi ñu fa yéene ko ànd ak koo xam ne it ni ma waxoon ci bu njëkk bi du ko ñuy présenté euh, muy Serigne Cheikh Fall euh, war a waxtaane thème bu am solo boo xam ne actualité la mën naa ne lépp ngir waajtaayu màggal gi ndax màggal gi dafa ñëw ci ci ci ci dañoo màggal ci ci ci jamono thème bi muy waaj a waxtaane muy thème solo kon xëy na bala may annoncé thème bi dama koy jox mu nuyoo Euh, ak ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel kon sëñ Cheikh Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. mbokk ji li ñuy déglu mbokk mbokk talibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar te di leen mm-hmm. leen baalu àq baax baax te di leen baal rawatina ci weeru tedd yu ñu nekk ak bi tedd bi ak pàkk bi. Mm-hmm. di ndokkeel ñëpp nag di ñaan ñëpp jàmm Cheikh Bada. jërëjëf euh, Serigne Cheikh Fall Taïf euh, ñu bëgg a waxtaanee ak moom rek benn tomb bu am solo mooy li nga xam ne mooy mbas mi nga xam ne moo xew ci jamono ji nga xam ne Euh, ni ñu koy waxee rek euh, bariwul fu mu eggul ci àdduna bi te ñun nag ñu war ci waxtaan ba xam taxawaay ban lañ ci war a am ndax kat gannaaw ci réew mi la ñu nekk war nañ cee xam euh, nan lañ ko war a dunde waaye nag lépp rek ñu teg ko ci diine ak lislaam ak taxawaay bi nga xam ne moom la ci diine am laaj bi ma koy njëkk laaj rek dama koy laaj ndax lii nga xam ne moo xew muy coronavirus bi Covid 19 sëñ Cheikh Fall boo ñu ko doon jàngatal. ci nan lañ koy mën a mën a fan lañ koy mën a dugal ndax xëy na euh, balaa la wala wala mbas la wala wabaa euh, ci tënk bu gàtt rek bu ko defee ñu door a jàll ci euh, yi ciy des kanam incha allah. kon noo ngi lay ndokkeel baax di la jaajëfal ci laaj bi. kon mu mel ni comme nan ko laajee comme li ñu xew nii nga xam ni ci lañ toll muy jàngoro. ju lëmba réew mi waaye ba bitim réew. mu mel ni nag comme ni nga ko waxee nii suñu dee waxtaan ci lu mel nii. ca bëgg koo teg ci. base bi ñu toll. Mhm. faaw ñu indil ko ay cëslaay ci lislaam xam naa nag day mel ni jëmm ji comme fi ñu toll nii lii ñuy dund moom mas na ko tuddee balaa. Mhm. ndax day mel ni bu fekkente ne dañ naan diggante wabaa wala taaxoon. Mhm. day mel ni ñi ñi ñi jàngatee lan mooy taaxoon ak lan mooy balaa. xëy na dëgëreem dëgg dëgg dëgg dëgg wax dëgg agul ci taaxoon. waaye kon ci ni ñu koy mën a tënkee rek mooy kon ci balaa la. balaa nag xam nga liñ koy ni ko maanaam mooy ab nattu maanaam balaa maanaam mooy ab nattu kiñ ko teg nag mooy ci kiñ koy nattu kon moo jox ñu naan al balaa ak ibtila balaa mooy li li muy tege moo xam jàngoro la mm-hmm. moo ak ñàkk la mm-hmm. moo xam faatu gu bari wala lu mën a doon mm-hmm. léegi nag kiñ koy teg kooku loolu loolu la ñu naan ibtila mooy nag buy teg balaa ci ñaar la koy teg muy ku ko gëm ak ku ko gëmut bu fekkee da koo teg ci ku gëm war na ca jàngat ñaar mm-hmm. benn bi war naa jàngat ni moom mi kat kon xëy na daa wàcc aw yoon mm-hmm. suñ borom di ko jox ab yar ne ko kat yaa ngi wàcc ci yoon wi ñëwaatal mm-hmm. léegi teg ko balaa wala mu teg ko balaa it ngir ëllëg kat am na ay euh, garaat wala ak jéggal gu ko bëgg a jéggal tax mu teg ko ko bu dee ki ko gëmul nag moom saa bu ko ko tegee rek day mel ne ab lancement lay doon maanaam xamal ko ne ko yow kat comme da nga wàcc aw yoon maanaam kon maa ngi lay lancement li di la bàyyi xel ni boo liggéey boo dikkeet comme li nga fi fekk kon li ñu ci war a jàngate mooy lii ñuy dund nii mm-hmm. maa ni ñu koy mën a tënkee mooy balaa la mm-hmm. ndax li tax mooy ni ko oh, borom xam-xam di waxee dañuy wax ni taaxoon yonte bi alayhi salaatu salaam da cee joxe woon misaal mm-hmm. waxoon ni taaxoon diis na diis goog maanaam du du dugg madina ca taaxoon ni ñu ko waxee boo dee bu doon mooma rey gi day bari ndax dañuy wax taaxoon bu doon mooma lu mu néew néew néew néew chaque jour li muy faat day ëpp ay junni junni mhm. ci euh, ci comme ci bi ñu nekk mhm. léegi nag bu fekkee da ngaa dem ci ci yeneen place yi nag kon xëy na man na faa taxawee lu mel noonu ndax ndax niñ koy déggee waaye ñun bu fekkente ne ci bari bi ñu nekk la moom duñ mën a dégg ni lii maanaa taaxoon la mhm. waaye balaa lañ koy lañ koy mën a joxe balaa lañ koy mën joxe waaye suñ balee bu ko defee jullit yi nag ñu bàyyi xel ni xëy na suñ borom bu tegee dara ab jaam la ci jaam ba war njëkk a jàngat mooy suñ borom tegu ko ko rek ci zéro waaw déedéet déedéet mhm. saa boo ko tegee am lu tax mhm. conduite bi li mu ci war a dikk jàngate mooy bu la suñu borom tegee balaa teg na la ko mhm. ngir nattu la maanaam xam ne da ngaa wàcc aw yoon mu ni lay xam ne dil siwadal ci yoon bi kon war nga caa jàngane su tegee balaa bii kat lu ci génn damay toog rek waaye damaa war a jàngane ndax man damaa wàcc yoon kon naa ñëwaat wala ma gis nit ñi su ma ko tegee am na ab yool bu ma bu ma bëgg jox ëllëg ak ma mu jàngate ci nag suñ borom du teg mukk mukk mukk am nattu ci zéro maanaam saa ko tegee rek am na ab yool kon bu fekkente ne teg na la ko dañ al balaa maa mooy li ñuy tege mm-hmm. al ibtila nag mooy ki ñu ko teg xam nangu na ko mm-hmm. bu fekkee nangu na ko waaw waaw nangu na ni suñu borom moo ko teg dogal bii mu muñ ko mm-hmm. suñu borom dana ko tegee ca dana ko fay ëllëg bu fekkee nangu ko nag du tee maanaam dogal ba nefa bala ba nefa ca ca boobaa ca ca du ca ak pay kon buñ ko déggee noonu faaw ñu gis ni lii ñuy dund dañuy nangu ni lii suñu borom moo ñu ko teg mhm. loolu mooy tax ëllëg dana ko teg teggi ba pare fay ñu waaye buñu gisee dañu ko teg ci hasard rek wala nanguwuñ ko wala kon day métti bi moo fi nekk mhm. mais ab yool du fi nekk macha allah mhm. euh, jërëjëf Serigne Cheikh Fall euh, waaye ñu gis ni euh, du du lu bees xëy na ci àdduna te ñun dañoo am ay royukaay lu mel ne ku tedd ki Cheikhul Khadim ak sangam bu tedd ba yonent bi sallallahu alayhi mu mel ni daana am ñu bëggoon a xam yan jàngale la ci lañ ci joxe woon ñoom ndax gis nañu ne toll na ci jamono joo xam ne léegi bari na lool commentaire yi kenn ku ne ak ni mu koy gisee waaye ñun gannaaw ñooñu ñooy suñuy royukaay jàpp naa ne bu ñu dellu siwaatee ci jamono yañ daan am lu mel ni masaan am yan lañ daan day mel ni lii du gan. Mhm. maanaam lu mel ni lu fi yàgg la waaye dafa mel ni nag tey bu fekkonte ne tey yan yan taxawaay lañ daan am. Mhm. man man maa wax ni rek tey fekkonte ne sax damay anticiper waaye dama naan taxawaay yi nga xam ne tey mhm. moom la julli wala kilifa yi di di joxe day mel ni jamono yooyu nag. amutoon yeneen taxawaay xam naa danañ si ñëw. ndax dañuy xam dañuy wax ci ci taarix lii ñu ngi ko njëkk a gisee ci gàddaay bi nga xam ni yonent bi alayhi salaam gàddaay na ko jógee jógee Makka ñëw Madina wax nañu bi mu fa ñëwee booba jàngoro juy wàlle amoon na ca la wax ca la yonent bi waxoon nag ni ni lii xew nii du taaxoon ndax newoon na taaxoon du dugg ma Madina waaw kay kon moo tax kon la xewoon la muy métti métti kon balaa rek lañ koy tuddee. Mm-hmm. wax nañ jamono boobu bam mu sa ma saxaaba yi. bari na si ñooñu jàppoon na leen am na si ñaari ñu ñu ñu gën a siiw mhm. ku mel ni Aboubacarine ku mel ni Bilal mhm. wax nañ ni jàngoro ya jàppoon na leen ba ba mu amee lam lam digle woon mooy nañ leen génn maanaam nañ leen ber kon day mel ni suñ ko dee dégg léegi jàngoro dal nit ñu ber ko doonut gan waaw baatu quarantaine mhm. kon maanaam xëy na ni ñu koy utiliser ni ak ni ñu koy tuddee mooy wute waaye jamono bi yonte dafa xoon ñii jàngoro ji daal nañ leen génne pourtant amoon na lu ñu doon faje mais jamono boobu xëy na Euh, ma maanaam faj ni mu avancé boobu amutoon boobu wax nañu lu mel ni meew wala am sawam gil sawam gileem ak xëy mel noonu loolu lañ leen doon jox maa ñim daloon ba yàlla dogal ñu tane door a ñëwaat ci biir nga xam ni kon loola mooy bi bi nga xam ni ma donte yu bari la waaye ma waaye ma seen ci tudd boobu waaye dafa mel ni xilaaf ak Seydina Omar ñoo koy ñu koy wax atam amal majaa nga xam ne booba yàlla dafa dogal Seydina Omar booba moo ubbi Palestine mhm. yàlla dogal booba gàddaay am na fukki at ak juróom-ñett Seydina Omar bi mu ko ubbee am na ay jàmbaar yu mu fa yebaloon nga xam ne ñoom ñoo ko fa nekkal wax nañu ñoo ne jàngar ja maanaam jàngoro ji feeñoon na fa mais ba mu fi feeñee la ka ka ko jiite woon wax daa wax ne ñëpp ñi nga xam ne jàngoro da da leen a dal nañ leen ber ba bu ñu xasoog nit ñi ngeen ngeen ñu bañ leen wàll. Mm-hmm. wax nañ sax ka nga xam ne moo ko jiite woon di Abu Omar. moom jàngoro ja da ko dafa metti yoon ba Seydina Omar sax da noo ko doon wax naan téemoo ñëw fekk si ko moo moom nag mu jëfandikoo xadis ba nga xam ne moom la ñu waxoon ni ko yoon bi dafa waxoon ni ku ci barab jàngoro fekk la fa mm-hmm. nga toog fa muñ ko ba yàlla dogal jàngoro ji jeex mm-hmm. wala nga faatu ca suñu borom da lay bindal tuyaaba kon day mel ni dañoo xam ne bu nit nekkee ci barab mm-hmm. ba jàngoro fekk ko fa sax lay lay ak njulite mooy mu toog fa maanaam ba jàngoro ja euh, jàll boobu kon dañoo xam ni Abu Ubayda Amir ibnu Jaraax boobu moo jiite woon maanaam moo fa nekkaloon Omar moom moomu ak ñeneen ñu baree bari jàngoro ja dal na leen ba ñoom lañ faatu nga xam ne biñ faatoo Seydina Omar kan kam fa tegaat dafa waxoon nag ñi nga xam ne dañoo faatu suñ leen dencee ñi nga xam ne bi yàlla dafa dogal jàngoro ji da leen dal kon nañ leen ber ba buñ jaxasoog nit ñi kon foofu toujours li ma bëgg wax rek mooy jàngoro am ñu ber ñam ñu ber ñam dal ngir bañ ñu wàll ñu wàll ñu si des loolu kon du gan ci boobu it mooy yi ñu amoon doon ko jëfandikoo muy pajement lañ ca mën ña koy def yaneen mooy yi nag xay na su ma ci dikkee daanaka mën ngaa wax ni bu jàngoro masaan am lañ daan def ci jamono yonte bi lañ daan def ci jamono saxaaba yi ba ci jamono Cheikhul Khadim na nga xam ne noonu lañ ko doon jañe loolu day nekk benn bind boo xam ne bii rek ñoom ñëpp dañ koy bokk nga xam ne kon yooyu ñaar la ci noonu nga ko mën a wàccee ba ni ngay ñëwee ci Cheikhul Khadim incha allah. waaw mel dañuy jàll rek ci ci ci ci ku tedd ki Cheikhul Khadim comme ni ñu ko waxee ndax ku ne xam na ne ñun xëy na moo ñu gën a jege yonent bi sallallahu alayhi te it xëy na euh, bi mu fi jógee yàggewul noonu te jamono mel na ne lu mel nii amoon na waaw moom yan taxawaay la ci doon def. waaw xam nga foofu dañuy wax ni day mel ni xëy na moom ci ay jamonoom du ma ne bi yi ci am waaye yi nga xam ne bokk na nañu ci gën a fés. yooyu xamaa du sori 1895 96. boobu am na mi fekk ko fi. xam ne boobu la génnoon. waaw bi bi demee ci géej gi. booba li ñuy wax mbas maanaam mbas la ñu ko mën tuddee amoon na. waaye boobu ba mu amee ñi nga xam ne ñoo yor responsable euh, manaa yoon wi ku mel ni maam Thierno dafa mel ni nga xam ne yoroon na njabaru Seexul Xadim mm-hmm. booba la nga xam ni moom la jamono laajoon defoon na ko. yi mm-hmm. wut maanaam lañ naan wut saafara yi ñu xam te dañ si ñëw waaye ak la nga xam ne moo ci toppit mooy wut wutal leen foo xam ne bi danañ fa mën a nekk ba xëy na jàngoo ju du leen aar mm-hmm. ndax dafa mel ni at mooma. ci njabaru seexam ci boppam bari na ñooñu wàcc nañ waaye mel ni si jàngoo ñu ci lañ wàcc ba ci ñeneen ñu bokk ci seex yoon murid yi ñu baree baree bari maanaam nga xam ni booba la faatu kenn xamul mu toll ci booba day mel ni jàngat jàngoro ji la woon booba nag amuñu woon nenn ci nuñ ko mën a faje ci saayir lu weesu ay néeg ak bero maa ñim dal ñu ber leen ak fañ nekkoon ñu tuxoo fa taal ko ak yu noonu maa ci jamono saayir ak di diwoo ay doom ak yu mel noonu daanaka boobu bu roon ci saayir mën nga wax noonu rek lañ ko mën a faje ba sax dañuy wax ni boobu xëy na mooy benn bi waaye am na boo xam ne bi it xam naa du sori 1920 21. boo xam ne it maanaam boobu moom fekk na fekk na bi fii ci njariñ waaw fekk maanaam fekk na ko fi. booba day day wax ne sax ci jëmmi beroog yi maanaam wax nañ ci yoonu murit mas na ab seex boo xam si ku siiwale comme ku ko tuddoon des na ko xam. am na dëkk bu mu dëkk nga xam ne feneen ab dëkk ma. pour dëkk ba la ko sanc maanaam yàlla defal ko moom jàngoo ci doo ko daloon moom ñu ber ko fa mu nekk fa far ba ne ba wér nag ne fa. far mbooloom fekk ko fa nga xam ne kon dafa mel ni ber googu ñu ko beroon tax na sax ñu sañ ci ab dëkk kon ba tey foofu li muy dikkaat rek mooy nañ ko doon toppe ci jamono yonent bi alayhi salaam nañ ko doon saafara ba jamono Seexul Xadim benn saafara bu dut képp ku jàngoro dal ñu jëm laa faj ci liñ man ci ak ber la ngir nga bañ a ngir nga bañ a wala nit ñi kon loolu moom moo continuer ba ni mu ñëwee ci jamono Cheikh Moustapha it ndax boo ko jamono Cheikh Xadim it dañ mel ni Cheikh Moustapha it lu mel noonu fekk na ko fi waaye moom it fajin wi ak doxin wenn la ndax cëslaay li dañ koy delloo ci lislaam ginnaaw jamono yonent bi alayhi salaam ku ma santal li ñuy def mooy ber la ak wutal la faj mu mën a am ci saayir loolu moo jaar ci saaba yi ba ci seen xadim kon dañuy mel ni lii ñu gis ni tey jii moom la saafara jàngoro jii ñuy gis nii mel na ni doon lu bees mooy comme dal ñu ber la ngir nga bañ a baal ñu ci des waaye li ñu jàpp ne mën na koo saafara ñu la koy jox. macha allah mhm. euh, jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Fall ci leeral yu am solo yooyu waaye xëy na euh, comme ni ñu ko waxee rek du lu bees te ñam fi daan fekk suñu kilifa yooyu ñu tudd daanañ def ay taxawaay euh, léegi ci jamono ji ndax dañ leen a war a diglu ñoom wala docteur yi la war a diglu ndax dafa bari murid yoo xam ne sama classe gi daanaka fii ne bu docteur yi waxee duñ ko kii waaye bu sëñ bi waxee rek ne gannaaw sëñ bi wax ne nañ def nangam yan taxawaay la war a am ngir mucc ci jàngoro ji ndax euh, mel na ne bu fekkente ne topp nañ li nga xam ne moom la ñuy digal mën naa am saafara dana am foofu moom li ci nekk mm-hmm. ndax li alxuraan di wax naan dee leen la fas alu ahli sikr mm-hmm. day mel ni day mel ni da ciy duggaat ndax ginnaaw yàlla dogal na ñoom la suñu borom dogal mm-hmm. ñu am xam-xam boobu di ci yëngu ci ci ñëpp nangul leen ko nga xam ne fi ne tey ku tawat da dem hôpital kon tey ki nga xam ne tey bu tawatee dangay dem jébbal ko sa bopp amatoole bu jàngoro feeñee donte nag jàngoro feeñ na xëy na am ngi moom kenn rente bu ko am gi kenn werantewu ko xëy na am na yeneen ak yeneen nag loolu moom duñ ci dugg mhm. waaye am gi moom kenn werantewu ko mhm. ndax nag dafa am loo si ginnaaw yëpp moom duñ ci dugg mhm. waaye ginnaaw tey ñoom la fi suñu teg ci ñu am xam-xam boobu ci wàllu saayir kon ala kulli al mu ne su leen déglu waaye ñi nga xam ñooy kilifa diin it ñoom it dafa benn fànn boo xam ne bit kenn mënuñ ci ñàkk a déglu ndax ñaar yooyu ñooy ànd ñaar yooyu ñooy ànd docteur yi ñu wax ci saayir nga di ko def sa kem kàttan waaye yeneen yi nga xam ne nag nag ay arme la nga xam ne moom la kilifa yi di moom la kilifa yi di di joxe ndax ñaar yooyu ba tey lañ ko faje rek benn bi mooy faju benn bi mooy ñaan mhm. ak agge ci ayu kon dama ne jamono bii ñaan ñëpp la ñu war a déglu les docteurs yi moom na leen ko jox waaye leen li nga xam ne moom la kilifa yi moom it ñu jox leen ko bu ñu leen ko joxee jàpp nañ safara mën naa am macha allah mu mel ne kon xëy na loolu lañ bëggoon a yaatal ndax ku ne gis na ne eh, ñaari côté yëpp daanaka mën naa ne am nañ seen digal ndax bu dee euh, fii Touba euh, xalif général di Mouride joxe na ci ndigal waaye da koy takk moom ci boppam takk masque ak euh, li nga xam ne moom la waa kër docteur diglu sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne xëy na moo woote màggal gi moom it gis nañu bis bi muy woote ni mu taxawee woon bañ na ko dafa takk masque waaye soññ ñëpp ngir ñu takk masque xëy na kàddu yooyu jeexale sëñ Cheikh Fall ak looy soññ ñi nga xam ne xëy na ñoo fas yéene ñëw ci bis bi. maa damay jàpp ni kon foofu liñ ci li ñu war a njëkk bàyyi xel mooy mhm. xam nga comme dañoo wax ni maanaam docteur yi moom am nañ saafara mhm. waaye ñu bàyyi xel nit ni mhm. maanaa balaa mii saabu bu dikkee am na lu tax mu dikk maanaa saabu jàngo saabu bu balaa amee rek nit ñi nañ bàyyi xel ni ak mooy am na ak wàcc yoon am na ak leneen ak leneen am na kon dafa bokk ci la nga xam ne lañ war a njëkk a lañ war a njëkk a bu ba balaa ñu ñun jullit ñi moo ñu delluwaat suñ borom moo ñu tuubaat dellu suñ borom waaye moo ñu toroxluwaat waaye moo ñu ñaan ko waaye moo ñu saraxe moo ñu tuub yooyu day maa day arme yi nga xam ni mag ñi dañ ko moom la daan utiliser ngir delloo balaa. Mhm. balaa saa bu dikkee arme moo koy delloo ci baatin mooy ñaan mooy toroxal lu sa borom di sarxe ak yu mel noonu. Mhm. kon yooyu faw ñu jëfandikoo ko ba noppi. maanaam même donte dañuy jëfandikoo li ñu ko docteur digle mhm. waaye yii moom mënu ko ñàkk mënu su ko ñàkk jëfandikoo ndax bu ñu bëggee mu dellu waaw lool loolu moo koy delloo sëriñ bi moo koy ci bay waaram ndax njàngum alxuraan bi ku ne gis na ne taxawul ci fan yi mhm. lépp màggal gi waaye fexe ba ñaan suñu borom tawat ji jóge mhm. waaw xam nga loolu moom mel na ni wax dëgg nag ñi ngi ñi ngi gis résultat bi mhm. bu wér a wér léegi nag li nga xam ne tey moom la ñuy wax nga xam ne tey ci contexte bii ñu toll muy màggal gi dañuy jàpp ni gàddaay yi ngir lislaam dara gën koo foor nit gàddaay ngir lislaam jàngoro dal ko ñu ber ko kon loolu amul ko gën a foor Seydina Omar bi mu dem Palestine di ko ubbi ngir diine jàngoro dal leen fa ñu ber leen di faju dara gën ko foor kon dañuy jàpp ne tey bu fekkoon dañ naan am na lu gën a foor ba tax tey bu lu maanaam jàngoro dal la wala jàngoro xew nga ne damay defe nu ma neex l'islam moo gën a foor gàddaay yi gën a foor ngir diine ubbi dëkk moo gën a foor ngir diine Seex Xaadim mii liggéey bi ñu Seex Xaadim liggéey bi ñu liggéey yonte bi moo gën a foor mais saa bu lu lu mel ni masaan am taxawaay yii lañ cay taxaw kon bu ñëwee ba li ba li répété wut. Uh-huh. la gën moo ñu ñu taxaw ci comme taxaw yooyu. ca ku mel ni Cheikh Amadou Mountakha nañ bàyyi xel ni comme moom exemple la ci. ndax bi ñee am na lim njëkk def mooy. Uh-huh. dafa làmb li ñu jàpp ni am koom la mën a dimbali mën a kër docteur yi. Uh-huh. waaye yëmu ci ma joxe ci ndigal waaye ba noppi dakku masque. ñu bari na tey bu fekkee dañuy gis ma takk ma takk masque. ndax dañuy jàpp ne waaye xëy na ndax daa mu baatin ma takk masque. wàññiwut dara dara ci baatin a am mm-hmm. wàññiwut a ba ci borom pàkk bii di Cheikh Amadou Mokhtar mm-hmm. moom kon moom it lii muy def nii mooy da koo da koo teg ci ak murid ak murid waaye da koo teg ci lislaam parce que cëslaay yi ñu wax nii kenn mënut a topp ba génn lu lu gën a kawe di mm-hmm. moom it kon masque yi muy takk ak li mu digle kenn ko ne ci war a def téewul muy xalifa Cheikh Moustapha téewut li mu yor maanaam mu yor ko comme ñun li ñu ci war a jànge mooy topp suñu diggale kilifa yi awalan waaye kër docteur yi li nga xam ne dañ koo moom ñu jox leen ko ngir nag mën a mucc ca ñu bàyyi xel ne bakkan mm-hmm. wattu bakkan farata la mm-hmm. amaloon nag ba fekkente ni nit ñi dañ koo wax mm-hmm. gis ni lii kat xëy na moo ko ko def man caa mucc ba noppi nga bàyyi ko rek def la la neex kon day mel sa bakkan bi maanaam yaa ngi koy sàggane te sàmm sa bakkan nag day mel ni farata la sëñ Bada jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax Euh, di sant bu baax mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon bàyyi xel euh, ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lañ doon def euh, di fàttali rek ne sëriñ bi noonu la ko wootee wax na ne mbooleem koo xam ne yaa ngi ñëw ci bés bi na nga sàmmonteeg ndigal yi kër docteur digle te sëñ Cheikh Fall ñëw na ci léegi mel na ne ndigal yooyu wuutewul ak ndigal yi lislaam ndax répété na ñëwul benn yoon ci diine lislaam kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax na mu ko waxee mbooleem gan ku ñëw toog ca bërëb ba nga xam ne fa dal ñu tarale ko foofa waaye mu dundal bis bi ci bërëb boobu mu nekk ci alxuraan ak xasida ak ni nga xam ne noonu la ko euh, mbokk yi doon junje kon mbokk ñu ngi leen di jaajafal bu baax di taxawlu foofu ba ci yeneen jataay incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa